lii neex na lool ndax fi ne nii mën naa am soxla walla doom am soxna soxla wala soxna am soxla ñu faj ko ci bu yàlla am soxla ñëw ñu faj ko ci waaye lii dama bëgg ngeen xam ne li muy neex neex neex neex dëgg nekk ci xol yi moo ko ëpp solo beneen bi ci des mooy lii ku ci jàpp ni boo ko amul waroo ñëw ci ñun tooñ nga sa bop ndax digënté ba ngay xalaté ni da nga wara ñëw ci ñun bu dee la wara téré ñëw nga sa bop au contraire li bu ngeen ko amé sax ngeen wara a dëxuñu toog ni ngeen ko wara gérer ngeen gérer ko bu ngeen ko amul da ngeen a foofa ngeen wara gëna sawaré ñëw ci ñun parce que li bu ngeen ko amul te mënta ñak ci yeen bu ngeen leni leni. xamal leen ni leen li do dong motax ngeen di dox bu ëllëgé bu ngeen ko amé da ngeen am gatché da ngeen am kersa te lii bu ngeen ko ñàkkee bu ngeen ñëwee ci ñun bu ngeen ko fi amee boo ëllëgee fu ngeen taxaw kenn du leen xamal dara kenn du leen yóbbu gën a gàcce boo ëllëgee fu ngeen amee dangeen di siggi du dëgg bi kii lii bu ngeen ko amut ñëw leen ci ñun ñu xam ne amu leen ko ñu wax suñu borom mu jox leen ko ngeen des ak seen sutura kenn du leen xamal dara du dëgg voilà lii moo tax ma di leen wax ne leen ngeen am ngeen ñàkk ñëw leen parce que li ñu boole dëgg la kon ay caaxaan boole wuñu bu suñu yoon nekk ci yeneen yi amu xaaj